dellu di fàttali sunu bopp ñu sax ñun ñëpp di santaane suñu borom te daw teree bi ñu ngi leen di fàttali te di jiital suñu bopp ne suñu borom nee na ñun jaam yi nga xam ne gëm nañ ko nanuy matal kóllëre ndax boo liggéey daf koy laaj wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula kóllëre gi laaj jaam yi nag yomal xiyam mooy ci mu seq ak nun ay jaamam bi suñu borom bindee roow yi te defe te defe guddee ci jëmm yi la waxoon ruux yépp alastu bi rabbikum ma ndax duma seen boroom xaaloo bale ñoom ñépp ñoo maase woon wax bale kenn weddiwul woon booba ruux yépp ñoo bokkoon tontu muy bale kenn weddiwul woon mu tekki nag wax ju rëy ne an taqulu yawmal xiyaamati inna kunna an haazaa xaafiliin mu ne damay bañkat ngeen ñëw yawmal xiyaam fi sama kanam di wax ne loolee ñu waxoon dañ caa sàgganoon ban nekk ab jox aw taqulu innama asraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'di wala ngeen lay ne da ngeen doon bokkaale waaye bokkaale gi da ngeen fekk seeni maam ak seeni baay doon bokkaale ngeen ñëw di seen gannaaw keroog yow ma fi am sunu borom du nangu wenn lay dul bale ah rek lay nangu bale wala kenn du ko nangu du nangu kenn daan ah waaye bokk jullit ngir bëgg nu sàmm baat boobu di bale moo tax mu yónni yonent yi mu yónni woon yépp jox leen ñenn ña mu jox leen ay téere mu digal leen ñu dina ko fàttali te lu wenn lay nag du baax ëllëg ndax ña mu yónni woon matal nañu sëkk la ñu leen yónni woon suñu borom mi wax ci alxuraan karim na wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an a'budu allaha wajtanibu taaxuut wa minhum man hada allah wa minhum man xaqat alayhi dalaala nee na yónni nañu ay ndaw ci xeet yépp ngir wax leen ne wax xeet yi ne leen nañu jàmm yàlla te moytu du ko taaxuut nag lépp loo jaamu loolu suñu borom rek mu dugg ci taaxuut mu ne ba loolu amee am na ci ñoo xam ne suñu borom gindi na leen ñu jub am na ci ñoo xam ne ak réer moo moo leen yey waaye ñooñu la ko sabab ci ñoom rek la bàyyi ko kóllëre googu nag ñu séq ak suñu borom ku ci jullit sàmm ko moo war a rek si yitte te képp kuy jàmm sunu borom di ko boole la neen keroog jàkkaarloo boobu nga jàkkaarloog sunu borom doo mën a wax balee lu bari ci bindeef yi nag gëm nañu yu baree bari ba mu des taxaw jàkkaarloog sunu borom yowmal xiyam baree bari defe nañ ne loolu moom du am ñenn ñi dañoo gëm ne dafay am ñeneen wala ku leen di taxawal ba kanam sunu di leen layoon te du am wa kulluhum aatihi yowmal xiyamati fardan la wax te jàkkaarloo bu ñu war a jàkkaarloog sunu borom xel du fa dox cër yi doon jëf-jëf yi ñooy wax lañu doon jëf bokk jullit muy jàkkaarloo bu raglu bu tiiblu te yéeme keroog ku nekkoon ci réer ku nekkoon ci jubadi ku doon sànq say waxtu bil baatil ci neen doo mën a wax bale fàtte ku jaam ñu bari di fàtte sàmm ko lële googu nag mooy waral nit di jël ngannaay di rey moroomum doomu aadamam te loolu nag di lu bari lool ci réew mi loo xam ne mësunoo gis nii mu baree ci jamono yii mu mas nee baree te borom bi wax ci alxuraan karim ne wa maa kaana li muminin an yaqtula muminan illa xataa nee na munta nekk jaaduwul warul ci ku gëm yàlla muy rey ku gëm yàlla ni moom lu dul njuumte waaye su loolu amee wa man xatala muminan xataa nee na képp ku rey ku gëm yàlla ci njuumte yii war na ci sa kaw fa tahriiru raqabatin mumina nee na na nga goreel ab jaam bu gëm yàlla loolu mooy li dox sa diggante sa borom ci jaamam bi nga rey wa diyatu musallamatu ila ahli nee na nga jox njaboot gi ma bàyyi die die jooji nag lu diis la ndax bu dee góor téeméeri gëléem la bu dee jigéen juróom fukki gëléem te gëléem yëpp bu ñu demee ci téere xam-xam yi daañu ko tasaare lu jafe la moo tax die jooju day topp ki ko def ak ki bokkam illa ay sadaqoo nee na lu dul da ngaa dem ñu sarax la ko baal la ko nga baal ñu baal la ko bokkee baal la ko mooy tax mu wàcce waaye loola su la wàccee ci die ji la wàcc waaye goreel jaam gi moom mu ngi comme jaam amatul nag fa ma lam jiit fa siyaamu sahrayni mutataabi'ayni nee na gannaaw jaam amut li ko mën a wecc mooy woor ñaari weer yu toftaloo yoo xam ne doo ca dog benn bis tawbatan min allah loolu ngay tuubale suñu borom loolu mooy atta képp ku ne ak jullit te teyoo ko te loolu nag accident yi ci bi yëpp ci la bokk saa bu ngeen déggee accident lu ca faatu ci ay doomu aadama rek lii ma atta bii ma la wax war na ci ak gépp rey ko sababoo ci doomu aadama te su dee nag rey gi nga xam ne yaa ko tey moom nga xam ne yaa ñëw rey nit ki ci sa sa coobare beneen att la bu diis borom bi di wax moo wa man yaqtul mu'minan mutaamidan nee na képp koo xam ne da ngaa rey ku rey ab jullit te tey ko nee na fa jasaa'uhu jahannama juróomi mbir la teg ci sa kaw nee na sa fay mooy jahannama xaalidan fiihaa dana fay sax wa xadiba allahu alayhi te nee na itam meram suñu borom bi ci kaw sa kaw wala xanaw ak rëbboom wa ahadda lahu azaban azima te nee na borom dig na la mbugal mu mett mu tar yomal xeex kon ku reyu jullit te tey ko firi nga kóllëre gi dox sa digg sa borom waaye ku bokkaale suñu borom te tuuboo ko ba faat itam firi nga kóllëre gi dox sa digg ak sa borom te musiba yu baree bare rek yu borom bi borom bi di wàcc ci àdduna ci kaw jaam yi mbewte gu nit ñi sax di ko def ba mu tasaaroo ci seenu doxin bokk na ci sabab loolu la borom bi waxoon te loolu yii ma wax ku ko weddi da ngaa jàngut histoire Firawna ak ña meloon ni moom ci mbewte borom bi nee na falammaa aasafuunaa antaqamnaa minhum nee na ba ñu ëppalee dama fayu ci seen kaw borom bi noonu itam jullit ñi bu leen jot ne mukk ne naan gëm naa yàlla rek ma bàyyi leen du ma leen fitnaal ma xam li ngeen wax dëgg la ci yéen wala déet alif laam miim ahasiba naasu ay yutrako ay yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun ndax nee na ñëkk a ñëkk njëkkoon a wax ne gëm nañu yàlla laqad fatana allasina min qabli fala yaxlamana allahu allasina sadaqu wala yaxlamana alkaasibin nee na tegoon naa leen fitna ba xàmmee ñi wax dëgg ak ñu wax lu dëgg te nattu su ko sunu borom di di wàccee ci kaw jaamam benn bu dee ñu gëm yàlla lam leen di yokk mooy cër bu rëy fa kanam sunu borom ak teraanga ju rëy yamal xeer waaye nag su dee balaa la su fekkee daf ko wàcce dafa fekk mbewte bari bokkaale bari te ña ñuy wooye boroomi xam-xam ak kilifay diine ne pat bañ a wax ak nit ñi bañ a fàttali nit ñi tëkk yu borom bi tëkkoo képp koo xam ne wàcc nga yor yu mu yu mu santaane ko ci jaar nee na su boobaa sunu borom wàcc balaa balaa boobee nag buy wàcc mën naa dal ci ñoo xam ne sax seen yónniku ci wolof moo wax ne ay du yem ci bopp borom moom la waxoon di wax ne wattaqoo fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaasa loolu mooy rey gu bari gi nekk ci réew mi ak jëf yu naaw yu ñaaw yi nekk ci réew mi sunu borom bi nee na su loolu saxee di wéy ma wàcce balaa boo xam ne du ngeen ko mës a dégg waxuma laa di ko mës gis mooy liy xew ci réew mu sori ma ñuy wax siin populaire te bu ñu xamee fu mu yem te muy réew moo xam ne ñu ngi wax ne moo topp ci réew mi ëpp doole ci àdduna a Amérique borom bi wàcc fa lu mel ni te mënuñu ca dara te lépp sababu jëf yi doomi aadama yi ci kaw suuf rek la ndax suñu borom moo ko wax borom bi moo ne saxaral fasaadu fil barri wal baxri bi ma kasabata aydi naas li yusiqahum baxdal la si amilu la xallahum yarjiun nee na su fekkee ne yàqute dafa wisaaroo ci kaw jéeri jéeg suuf si nee na lépp mi ngi sababoo ci seen loxo seeni loxo bopp su boobaa ne dama mosal leen lenn ci li ngeen jëf ndax ngeen dellu si tey nag gis nañ ne loolu lu ko yées sax dafa mel ni bi réew mi ndax léegi dégg nañ jigéen du taxaw ne yàllaa ko yónni góor gu taxawit na yàllaa ko yónni ñaar yëpp ñu ngi am ci réew mi yi ñu wax fi mu su ko defee lu mel noonu ki wax loolu weddi na alquranul karim weddi na waxi sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam muy lu rëy te ñëpp ngi ne part genn kilifa dina dégg guñ wax ci bajalees ko am ko seetlu itam ci doxinu jullit ñi boo def jullit bu am xam-xam di seetlu da nga tiit lu tax lu bari ci jullit ñi sax ci di woo sunu borom di ko ñaan te suñu borom wuyuwul te ñaan yàlla mooy ngànnaayul kon soo saxee ci di woo sunu borom di ko ñaan guddi ak bëccëg tu wuyu la war ngaa tiit ndax du sa jullit manqué na sunu borom moo wax ne ud'uunii astajib lakum woo leen ma ñaan leen ma ma wuyu leen ndax fa innii xariibun ajiibu da'wata daa'i izaa da'aani nee na maa ngi ci seen wet yow mi yow mi may woo di aj te te gëm yàlla nee na maa ngi ci sa wet soo may woo rek ma di wuyu kon suñu wootee te wuyu ñu war nañoo xam ne am na lu manqué ci tegoon na ca rek ba waxee loolu ne fal yastajibu lii wal yu'minu bi nee na wuyu leen ma ci li ma leen sant ba noppi te ngeen gëm ma kon mbokk yi war ñoo xam ne am na lu manqué ndax damay wax ne biir bu fees ak riba nag làmmiñ woy naa sax ca ak di wor su woo sunu borom du ko wuyu Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ci téereem bu ñu wax silkul jawaay nee na sunu borom rëbb na ñett arraas yi wal murtas yi wal riyaas nee na aji gere ji ki ñuy ger ak ki dox ci diggante ba ba ger yomb ñeen na ñeen ñoom ñett lépp rëbb nañ leen te bokk na ci li gën a rafet gën a gën a jafe ci réew mi nag dërëm bu lew ak tib bu dagan dërëm bu lew ak tib bu dagan lu jafe la fii ci réew mi mën ngaa defee na lew na nag yow waaye su jee su lislaam ñëwee ba indi jeexeem ci ñuy wax sariya du fa ba dara bokk na ci yi nga xam ne yi mën a sabab balaa yu bari di wàcc ci àddina bi itam jaxasoo boroom xam-xam yi ak kilifay diin yi jaxasoo gi ñu jaxasoo ñoom ñi ñuy tudde buuri àdduna jaxasoo ñoom dana jur loolu du jur lu may martaba yu yu wàññeeku ci seen digg ak seen borom ndax perkaal bu wax tàll ab sën du palaasam kon nanu bokk ñaan sunu borom mu defal nu ragal yàlla muy sunu koddaay ndax wali basa saa koy saalika xayrun mu doole ñu itam sunu topp yàlla mu tëyee ni suñuy jéego ba duñu jéggi fudul fu mu gërëm boo ko xam ne jant bu fenk daf nuy fàttali bis pénc jege gu mu nuy gën a jege bis penc di gën a jege sàggante di yokk ak réer ak gumba ci yoon jub ñaata waaraate ngeen di dégg ci jumaa yi ci jàkk yi ak ci yeneen barab yi te du tax ngeen dellu ci seen borom tuubal ko taxawaay bi ñu waaj a taxaw suñu borom te faw mu am suñu borom ne na ku ko sàggane kanam boo taxawee fa kanam doo mën a wax balee te ku waxut balee la ngay yeeyoo ci mbugal doo ko attan beneen bi kóllëre gi xam ne war nañ koy sàmm mooy suñu diggante sunu borom no sant na lu ñu tam ñu sàmm kóllëre yi dox suñu diggante jullit bi war naa sàmm kóllëre gi nga moo dox digganteem ak moroomum jullitam jullit bu ne nga sa moroomum jullit lii may bëgg wax te leen la ci tudda du bu nekk yoreel nga sa moroomum jullit soo ko rombee nga nuyu ko soo ko rombee mu toog nga nuyu ko nuyoo sunna la waaye delloo nuyoo farata la su tuslee nga nokkeel ko wax ko yarhamukallah su la am benn woo jëfandikaay da nga am ko nga dimbali ko jot yàlla tax abal ko ko su tawatee nga di ko seeti su génnee àdduna bu gunge ko yii jullit bu nekk yaa ko yoral sa moroomu jullit naka noonu itam ñaari way denc na muy ku wóor ak ku jigéen ku nekk am nga àq joo yoral sa morom te suñu borom dana ko laaj yomal xiyam ku góor gi moo war a yore dund bi moo war a wut dëkkuwaay bi moo ko war di wottu ak di dëkkook moom di ko yiir itam tam kattanam ku jigéen ji itam yaa war a sàmm sa alali borom kër ci biir kër gi lépp luy liggéey jigéen ci biir kër gi yow la doy na nga xam ne yow jigéen yi nga xam ne sa àqi borom kër lu diis la yomal xiyam bu la suñu borom laajee ak xam diggante ba yow ba noppi sa àqi borom kër la lay laaj te lu ca manqué mbugal ma ma cay war doo ko su ko defee nag fase dagan na waaye yi suñu borom daganal yépp moom la ci gën a bañ rawate nag fase boo xam ne ci bakkan rek la teg kon nag nan bàyyi xel ci yii te xam ne ëllëg jege na yal na nu yàlla jéggal te yërëm nu te teg na ci siraatul mustaqim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa sallam